Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3MD énergie ñoo leen may seen de presse résultat provisoire yi tukkee ci élection législative yi ci la yéene yu bëri xëyee tey réew mi quotidien àdduna ca di xam ne ni ci téeméer boo jël ci li nga xamante ne moom mooy suffrage yi pastef daal am na ci juróom fukk ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar looloo tax parti au pouvoir mën a bëpp lu toll ci téeméer ak fanweer ni ay siège ci assemblée nationale ci téeméer ak juróom benn fukk ak juróom yi nga xamante ne ñoom ñoo fay nekk lii Pastef am moo tax Vox Populi gis ni résultat provisoire yi nga xamante ne commission bi fësal na ko ni ki démb dafay dëggal rek doole gi nga xamante ne parti au pouvoir dina ko am ci assemblée nationale ndax téeméer ak fanweeri député yi nga xamante ne Sonko buub na leen ci yooyee ñaar fukk juróom-ñeent ya ñu nga tukkee ci liste nationale téeméer ak benn tukkee ci ñeent fukki département yi nga xamante ne ñoo nekk ci Sénégal ak juróom-ñaar circonscription yi nga xamante ne ñoom ñoo nekkee ca biti réew lépp Pastef TV yor-yor bi daf ci xayma ne ñu ngi toll ci un mille sept cent soixante-dix voix looloo tax Ousmane Sonko ak ñi mu àndal war a am téeméer ak fanweeri siège boo ko xayma muy téeméer boo jël juróom fukk ak ñeent yu taftal juróom-ñeent juróom-ñett li moo tax suñu naataangooy jàpp ni Pastef daal doole bu mat sëkk lay am ci assemblée nationale war fa buur di bu mi lu ni mel la soleil yéene kaay gis ndax nee na patriote yi war nañoo toll ci téeméer ak fanweeri député ci assemblée nationale mu war nekk kon yaakaar député yi nga xamante ne moom la ñu doon sàkku takku wàllu nag am na lu toll ci fukk ak juróom-benn député jàmm ak njëriñ juróom-ñaar sàmm sa kàddu ñett ànd nawle ñaar lay am juróom-ñetti lis ku ci nekk am benn député muy li ñu fortaatu ci li nga xamante ne moom mooy plus fort reste le quotidien mi dikkaat ci résultat yooyu gis ni Pastef daal daanaka ay décide la joxe adversaire am moo tax assemblée bi ñu jëm daal beneen melokaan la war a am muy recomposition bi nga xamante ne yéene kay ma jàmbal jaan bi jàpp na ni mooy am ndax parti au pouvoir lu toll ci téeméer ak fanweeri député takk wàllu fukk ak juróom benn jàmm ak njëriñ juróom ñaar sàmm sa kàddu war a am ñett ñeneen ñi des ku ci nekk benn mu mel ni jàngat bi la quotidien yéene kaay def mooy sonko daal jël na ndaw partiam jox leen ay base parti socialiste source a xëy def jàngat ci moom mi nga xamante ne yoroon na fi nguur ay jamono mu nekk jamono ji nag ci yoonu barsak li ko waral suñu naataango yi di fàttali ni ci quatorzième législature bi wees amoon nañu lu toll ci juróom benn député waaye assemblée bu bees bi benn député cundung la ñu war a am ca jamono jooje Pastef moom dëggal raziaam bu ñu sukkandikoo ci le témoin yéenekaay bi dikk na nag ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo war a ñëw bees ci bile assemblée muy Birima Mangara Tahirou Sarr Abdoulaye Sylla Cheikh Oumar Anne Anta Babacar Ngom ak ku ci mel ni Abdoul Karim Sall bu weesoo ñi ñëw bees yéenekaay bi di fësal nataalu ñi nga xamante ne ñoom lay njot ni war na ñoo mën a jiite assemblée ci boppam suñu naataangooy lim ci El Hadj Malick Ndiaye ñeneen ñi ñoom ñooy favori yi ak lim ci mënti doon daal les échos jàpp ni assemblée bi ñu jëm daal ay forte tête lañ fa war a gis ndax ku mel ni Tafsir Coy Cheikh Omar Anne ak Thierno Alassane Sall waaye ku mel ni Maguette Sène Moustapha Diop ak Birima Mangara mën nañoo nekk ñi nga xamante ni ñoom ñooy dalal yëf yi Abdoulaye Sylla nag mi nga xamante ne bees la yéenekaay bi gis ni moom moo créé surprise ci bile assemblée ci député yi Pastef yi nag mën nañ fa gis ñi nga xamante ne am nañ ci lool xam-xam ak expérience waaye tamit ay spécialistes yi leen natable gannaaw li mu doon wër am na ko Walf Quotidien di fàttali Ousmane Sonko ci li nga xamante ne moom la diggee woon muy rupture bi nga xamante ne dina ko indi ci assemblée national moo tax yéene kaay groupe Walfadjri bi jàpp ni Ousmane Sonko moom gannaaw kàddu gi léegi jëf ji moo des li ñu jàppoon ni état jëf na ko jëmale ko ci presse bi loole dara amut mu mel ni def ci boppam mooy weddi ci Sud Quotidien compte bancaire entreprise de presse yu ñu jàppoon ni kon fisc bi mu jon na ko ubbi te amagul moo tax yéene bi gis ni ci boppam boppam ba léegi ma ngay maintenir pression bi ci presse bi mu mel ni pression am na ci secteuru napp gi enquête mi ci def jàngat bu yaa niki tey ji gannaaw accord bi nga xamante ne Sénégal dakkal na ko ak Union européenne mu mel ni napp gi ci Sénégal ma ngay nekk ci guddi gu bër sa bërsetegul waaye nguur gi ci boppam ma ngay dëggal boppam ci ni muy fexe ba ñoŋal secteur bi nappkat yu nekk ca Ndar nag ñoom ñoo ngay ŋàññ njeexital bi nga xamante ne pétrole bi ak gaz bi mu ngi koy am ci seen yëngu-yëngu ca jamono joojee DER bi ak accord yi nga xamante ne Sénégal xaatimoon na ko ak biti réew ci wàllu napp gi wàllu napp gi ci la laas xëy tamit tey ji ndax ci biir yenekaay bi waa coalition des acteurs de la pêche du Sénégal nee ñu secteur bi ci seen wàllu bopp léegi dañ ko bëgg a téyel seen loxo ñu fexe ba gën a aar lii tukkee ci waaxub Sénégal yi ñoom waa CAPS yamuñu ca ndax nee ñu lu jëm ci xeex mbëkk mi moom daañu ci dugal seen loxo gën cee taxawu état bu Sénégal l'observateur moom ma ngay wax ci carburant bi nga xamante ne ma ngay xeeñ yokk jamono ji xamante ne démb lañ ko doon amal ci ndakaaru ñeel phase 2 jàngat yi nga xamante ne ñu ngi koy def ci wàllu structuration des prix hydrocarbures raffinés mu mel ni pétrolier yi ñoom ña ngay sàkku ci kilifa yi ñu daal di càmbar redevance yu bees yi nga xamante ne kon commission de régulation du secteur de l'énergie moo ko def te loolee ñu jàpp ne bu nu ko bàyyee mën na indi njeexital ci njëgu carburant bi moo tax ñoom lu ñuy sàkku mooy ñu bàyyi taxi fa mu nekk jamono ji suspension bi ARCOP def ñeel marché AE Power fa la ñu koy ni cour suprême daa dinay gàntal càkkuteef Azer ngir ñu daal di teggi boobule suspension recours yi ñel fond dossier bi ci boppam ëttu attekaay bi dina ko càmbar ci ay bis yu ñu dëgmal réew mi people tey càmbar carrièru ami cardinal Ndiaye moom kenn bi nga xamante ne ràññee neen ko lool ngir na mu bindoo ma ngay nettali ci biir yéenekaay bi jaar-jaaram ba ci sax yenn ci ay yëngu-yënguwam ndax yamul rek ci ay pëjam moom ami cardinal Ndiaye day yëngu tamit ci activité